salaamaaleykum sunu mbokk internet euh, Bataxa TV ak Medina TV ñu ngi ñu nuyu di leen ziar di am mbégte saa su ne di leen toppal actualité rek kon ni ma koy waxee saa su ñun actualité rek la ñuy daal di dox tey nag ñu ngi fii ci Yoff si dalal fi kilifa bu mag. ki ñu naan suñu papa Mame Matar ñu daal di waxtaanee ci actualité yi nga xam ne jot na fee euh, jot na fee xew jëyee nga xam ne jot na fee xew semaine passée depuis quelque temps ñu ngi koy waxtaanee te moom su waxee rek dafa war a wax papa Mame Matar ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax a baax. jërëjëf euh, di gërëm particulièrement Bataaxal TV Medina TV ak sa naataango waa Evidence TV. Mhm. ci euh, déplacement bi. di leen masalu coono ndax fi mu ne dëkk bi xat na. Mhm. xam nga fi dëkk bi toll ci wàllu politique jaabante yeeg euh, dem ak dikk bi. Mhm. ak tamit euh, ñiy jóge màggal bu yàggul. moo tax ñu leen masalu coono te di ñaan suñu borom bés bu màgg bi ñëwee si ñun muy. màggalu Touba gi. Mhm. encore une fois du màggalu Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi koy tooñee sama mbokk murit yi. ndax moomu leen ci Ahmadou Bamba. Mhm. Cheikh Ahmadou Bamba c'est macha allah dafa nekk un patrimoine universel. Mhm. waxul ne màggal leen ma man sama jëmm ji sama bakken bi déedéet dafa leen ngeen ma yàlla. macha allah moom ci sant gi mu war a sant yàlla mu ne ñëw leen ngeen jàppale ma ci. macha allah kàttanal ma ñu sant kon nag liñ fa def ci cant ci ñaan ci istixfaar ci ay zikri yëpp. Mhm. yàlla na ko suñu borom nangu. amiin amiin. Euh, pour que mu weesu les frontières de Touba. macha allah mu sëmbartal ko ci réew mi yëpp. macha allah def jàmm ci réew mi faj ajo yi. macha allah euh, euh, nu mu tuddati faj aajo yi te daxal réew mi seytaane. yi comme ni nga ko waxee. Mhm. musiba yi bari na. Mhm. rey yi bari na. ba fi mu ku la ne jaaxlewul rek dafa wax lu ko neex. Mhm. waaye ñëpp a jaaxle. Mhm. voilà kon nag maa ngi am yaakaar ne simili yi ñu fas yéene seq laajab tontu. macha allah. dinañ ci jëlee njëriñ ñun ñi ci plateau bi kazalika mbooleem euh, téléspectateur euh, bataaxal TV Medina TV. ak incha allah incha allah papa ñu ngi lay jaajëfal ci nuyoo bi am na solo. Mm. mais dañuy waxtaanee actualité mais laataa ñuy dugg ci actualité au fond des dama la bëggoon laaj rek Jamra. waaw dooree dèjà da ngeen da ngeen naa sampal lu bees. Mm. Ah, di nga nekk di former ay xale. Mm. ba gox ba ci nekk nga wit. nga utal leen huit communicants. c'est ça nan nga ko mën a expliquer. waaw loolu lu jaadu la. parce que xam nga léeg nga gis ay naataangoo di ma ci tooñ. waaw yow pa jamono bi xanaa yow rek la ñuy gis. <laughs> yow rek kay wax. <laughs> Euh, mën na leen waa d'abord. parce que dafa am loo xam ne xam ngeen ko ba noppi. mooy mhm. structure boo gis dafa am ku ñuy dénk kàddu bi kàddu. ma ne ko masalan pour tooñ sama doomu ndey Ablaye Wilane chaque fois parti socialiste war a mm-hmm. yëkkati kàddu ah mm-hmm. kan la ñuy dégg moom la ñuy dégg parce que il est le porte-parole mm-hmm. boo xoolee benn bokk yaakaar wala APR bu ñu leen waree dégg ku ñuy dégg euh, Seydou Gueye wala bokk son adjoint Abdou Mbow bi porte-parole waaw bu dee Jamra aussi imam Samba Diop mooy président exécutif bi imam Moustapha c'est le vice-président chargé des relations avec les institutions religieuses mm-hmm. imam Adama Niang nekk euh, le vice-président chargé des affaires culturelles man nag je suis le vice-président chargé de la communication kon c'est mm-hmm. normal ngeen di ma dégg man mm-hmm. alors waaye terewul bàyyi nañ xel dénkaane bi fii rahmatulah ali Abdou Latif Gueye bàyyi macha allah dafa ñu dajale woon woo imam Samba Diop woo ma ak ne ah dëgg la ñu ngi am ndam euh, am nañu ndam contre les francs xeex mm-hmm. nañ ba tëj nañ seen siège bi am nañ ndam contre trafiquant de yamba yi mm-hmm. mu daal di naxari lool nag benn activiste clochard bu nekk ci <laughs> diaspora bi ba jamono criminaliser yambaam criminaliser cocaïne bi daf ñu def noonu mm-hmm. alors am nañ ci ndam léegi dootul ay trois mois ki six mois dix ans minimum la assorti d'une amende qui fait le triple double de la dose am nañu ndam ci Jakarta ba ñu doon jaay ci école yi. ndax état bi ànd na seeg ñun tere nañ ko et cetera et cetera ne waaye nag nañu bàyyi xel que nous ne pas éternels. Mm-hmm. le temps passe on commence à faire de l'âge. or Jamra doit être éternel parce que Jamra ñun moomatuñu ko ñun ñu ko créé. Mm-hmm. waaye c'est devenu un patrimoine national. macha allah alors loolu waral nag ñu ngi waajal. Mm-hmm. une nouvelle génération. voilà maa ngi commencé di retiré wu ndànk-ndànk. Mhm. pour l' instant dañu dajale jeunes yi. Mhm. Euh, ci benn panel ñu nekk deux cent trente et après nag def nañ ay sélection mhm. ba tànn nañ ci huit. yu am yoo xam ne am nañu jot. te ils euh, yow nee nga am na koo ci gis. bu yàggul euh, bi ñuy. jaale Aziz Dabala mu ànd ak Pape Diouf yaayu Aziz parce que Pape Diouf yàgg naa nekk xaritam ñoom ñoo bokk seen ginnaaw raay. mu yëkkati fa bi wax ne dafay wax ci turu Jamra macha allah kon nag man maa waroon dem ca dëj ba mhm. waaye j'étais pris sur le dossier des euh, migrants de retour de Dubaï mhm. te marabu saay-saay bu ñuy wax sëñ Bassirou Niang escroqué leen mhm. ñu déposé quinze plaintes à la DIC ci yooyu laa ne woon moo tax nag euh, El Hadj Pape bii nga gisoon moom moo dem c'est le coordonnateur de Jamra à euh, à Pikine Guinaw Rail alors léegi am na yeneen émission yoo xam ne euh, moom moom moo ciy représenté. Mhm. Euh, gis ngeen ko temps yi euh, Ndoumbelane. Mhm. ci tey Sen TV. Sen moom moo dem. Mhm. Eva Tra tamit nga xam ne dafa tàmm di ma invité. macha allah ci émission boobu def taxaw seetlu wareef. temps yële Cheikh Amadou fay Faye le de la cellule de Jamra de Xombal dans le département de Thiès moom mooy dem. macha allah Walf Fadjri am nañ seen émission bu ñuy wax mais c'est surtout sa s'adresse surtout aux jeunes. ñu di ko wax euh, euh, Black Label. Black Label uh-huh. euh, Biram Traoré qui un jeune vingt-huit ans à peu près une tête bien faite. parce que c'est un hmm, master en commerce international. Mm-hmm. moom mooy le coordinateur la cellule de Jamra de Koungheul. Koungheul ci région de Kaolack. Mm-hmm. moom moo dem voilà ainsi de suite léegi bu xale yi demee nag ba roode. ma commencé di retiré wu ndànk-ndànk. mais ça mm. ne veut pas dire Jamra. waaye dinaa toog rek si banc de touche yi comme entraîneur. da di gunge daal. di leen coacher. Mm-hmm. alors euh, bu ñu demee ba roode nag. Mm. bon après euh, defe naa vous me verrez de moins en moins de moins en moins ma daal di mën a. Euh, yore sama sajaad ak sama kurus. incha allah commencé di waaye boobu ba tey sénégalais dañ lay soxla. maa ngi tooñ xale yi sax leen boo indee ba roode na leen. rayal nag. Ah. <laughs> parce que vous m'aurez permis. Mm-hmm. de bénéficier d'un congé. Mm-hmm. bien mérité. Mm-hmm. après trente-huit ans. combat congé. et à l'attention des mauvaises langues. sans congé et sans salaire. voilà kon nag salaire amu fi bénévolat la à cent pour cent kon nag pour dalal sa l'équipe qui assure la relève est en train de marquer c'est pas c'est pas. macha allah papa mais ci biir loolu rek eh, yow remplacer la daanaka du yomb. kon ni nga ko waxee yaa ngi ko yaa ngi yaa ngi leen di gunge te doo teggi sa tànk te ñu ngi lay ñaanal eh, nga yàgg leen gunge cent ans. Ah. xale yi ndéem yéen a ngi may seetaan rek may ndaw si sax moom ma jox idée boobu. <laughs> Euh, na xam ni que vous devez vous attendre à jigéen ñi dañ leen fay fay sosal. falaa bëggoon dugg sax toxkati yàmbaay yi ak activiste clochard yi nekk ci diaspora bi. te mere Jamra ndax li Jamra criminalisé seen yamba. criminalisé seen cocaïne dinañ leen mhm. saaga dinañ leen kii waaye nag na leen ko jaral. Mhm. parce que suñu borom nee na sang bu tedd Seydina Mohamed lu mu wax maa ko wax. sang bu tedd bi nee na. Mhm. jullit ginnaaw boo matalee say euh, juróomi ponk yi. muy shahadaat beeg waxtu wi juróom woor weeru koor joxe azaka. ak aji màkk bu la ko sa poos ak sa wér gu yaram maye nee na c'est bien waaye la koy mottali. mooy sa taxawaay ci penc mi mhm. maanaam loo gis muy raam jëm ci penc mi te nar a yàq jikko yi mhm. wala loo gis muy raam jëm ci penc mi te nar a tilimal malaan lislaam mhm. nee na waajib la maanaam obligation la pour nga opposé ci ñu ne ko naka mu ne bi yedd yii par la l'action su jàppandiwul mu ne bi lisaani yi nga wax nga yuuxu alerte woote walu mooy li jam na di faral def su jàppandiwul nag bi xal bii bi xal bii nag mooy nga naqarlu ko sa xol suñu borom xam ne ah kii kat dafa néew doole waaye naqari na ko alors bi xal bii nag c'est le degré le plus faible de la manifestation de notre foi à Dieu. Mhm. voilà kon nag lu saaga yu bari. Mhm. yéen xale yi les huit communicants la mhm. yi nga xam ne vous êtes déjà opérationnel na ngeen fàttaliku denkaane boobu nga xam ne du man du Latif du Jamra waaye sang bu tedd bi Seydina Mohamed moo sallallahu alayhi wa mais papa papa Matar ci biir loolu les huit communicants ah c' est des jeunes parce que wax nga fi ki nga xam ne am na vingt huit ans vingt neuf ans la am ki nga xam ne mooy communicant Koungheul bi euh, mais yow tey yëg-yëg bi nga am ci nit ñi yow ba tey lu luñ la wax da ngay dégg ci sa ci sa xel ci sa xel mu sell ak si nga xam ne cër ba nga xam ne sénégalais yi jox nañ la ko ndax ñoom ils auront la patience yow patience bi nga xam ne am nga ko ci sénégalais yi. waaw sa ça venir ndànk-ndànk bon parce que ñun au début ba ñu tolloo ci suñu diggu ndaw maak Latif dañ daan xeex. <laughs> waaye dépassé nañ ko. macha allah voilà léegi dañuy encaissé wanaasu ko. Mhm. Euh, ba pare daal di continuer suñu ay jéego. macha allah voilà ñoom itam ma di leen euh, ñaax rek. Mhm. pour ñu euh, bañ am xadar. Mhm. waaye ñu ànd ak dal rek. macha allah xam ne lii ñuy def defaluñ ko seen bopp. seen réew lañ ko defal. Mm-hmm. suñu borom subhanahu wa taala lañ koy defal. macha allah yal na yéen bi oyof ci ñoom bu baax a baax a baax mm-hmm. mais Papa Matar kon ne ma ko waxee rek sànq actualité bi il faut ñu wax si temps yi insécurité bi nga xam ne. Mm-hmm. mi ngi rëñee ci biir Sénégal rey yi depuis deux semaines rey yi di tegloo. ki ci mel ni double de meurtre ba nga xam ne ki nga xam ne mooy dem ci yàlla Aziz Dabala ak Waly mu nekk la nga xam ne une première au Sénégal suñ ko mënee tuddee noonu ñu jógee di fa ñu fekk nit ci taxem agressé ko rey ko jël téléphone am euh, meurtre bi nga xam ne am na récemment foofu ca sacré que 3 ak xale ba nga xam ne rey nañ ko xale bu am 15 ans ñu fekk ko ci égo yi Tëngéej yooyu yëpp nag nga koy jàngatee. d'abord maa ngi yeesalaat sama njaal njabootu. Abdoul Aziz Ba ñu mhm. gën ko xam ci Aziz Dabala mhm. ak tout tànk ba mu bokk la néeg bi te ñu def leen di ñaaw yooyu Boubacar Gano Waly man maa waroon ñëw waaye média yi gis nañu ne Jamra yabal na fa la coordonnateur de la cellule de Jamra bu Pikine ginnaaw raay mhm. ndax euh, jëye ji mu ngi amee foofu ci Pikine Technopole donc comme ni nga ko waxee sànq El Hadj Pape Thiam moo ñu fa représenté woon mu daa di fa fekkante xaritam bi doomu ndeyam bi Pape Diouf macha allah kon nag euh, maa waroon ñëw waaye benn la kooku bi mu waxee rek waxal na bureau exécutif bi yëpp. Mm-hmm. wax xam nga li ñëpp seetlu te laajul xam-xam bu rëy. Mm-hmm. mooy amoon na ay at peut-être dix ans ci ginnaaw quinze ans mais boo déggee jëye ju mel noonu. Mm-hmm. meurtre. assassinat. rey ñaaw balaa ngaa dégg ci beneen ay deux ans trois ans. Sénégal léegi dafa nekk banalité. nit ñaa ngi koy coow wala ba waaye balaa ginnaaw si ba ñu nga ca beneen wax. Mhm. alors loolu mu nekk lu dala di xel. Mhm. ñaareel ba bu njëkk ba agresseur daf la daan koj ci ruq bu lëndëm. Mhm. wala nga guddee wàcc wéet ci arekaar bi. mu tiimale la ak gànnaayam. waaye boo jëlee yaa nga yor jox ko moo xam sa téléphone wala sa porte mhm. mu daal di jël loolu ndax loolu moo ko itteeloon mais daf la daan bàyyi ak sa bakkan mhm. mais léegi dañuy fab sa alal fab sa bakkan dëgg la kon loolu lu bees la fekk ba sa biir kër ñetteel ba yematuñu di ko ci mbedd mhm. ndax dara gënu la dal xel nga nekk sa biir kër dañ lay fekk sa biir kër def na waaw ndax coow li am nii defoon nañu point de presse. Mhm. di exiger état mu abroger la loi 2004-38 du 28 mhm. décembre 2004. bi mhm. aboliroon la peine de mort. parce que loi boobu moo ko fi jëlee waaye peine a ngi fi woon. sa benn naataangoo laaj ma ne waaw lu xew noonu ma ne ko ki ñuy rey ci ñun la bokk. Fatoumata Makhtar Ndiaye. ndaw su jàmbaare. nga xam ne foofu ca banlieue ba bu koor jotee. Euh, suñuy wareef yëpp ci wàllu conférencier mhm. conférence aussi yi ñu daan ànd ak Chérif ay Aïdara ak yeneen ak yeneen mhm. moo daan fab ci alalam loué bâche loué sonorisation chaise daawul nangu suñu dërëm dugg ci suñu bëgg cotiser pour jàpp day bañ nee na mhm. gënu ma bëgg sàkku yiw ak nga ngërëmal borom bi macha moom waxuma la biir këram sax chambre à coucher dañ ko fekk waa kon léegi fan la nit mën a nekkee en sécurité alors rax ci dolli fréquence bi ndax ba ñuy dëj Abdoul Aziz. Mhm. néew bi seddagul sax dans la même semaine fii ci Grand Yoff. Mhm. benn taximan bu jàmbaare ndeysaan. exactement gis ñaari jeune fii ay wuyu yu nekk ci moto. gaare agressé leen agressé taximan bi jóg bëgg dox si diggante ndaw si ñaari ndaw si yooyu ñaari ndaw yooyu ak agresseurs yi waaye dañ ko tëgg ñaari bari pistolet. Mhm. nekk daanu. la même semaine. fii ci euh, euh, euh, Bargny mhm. ndaw soosu ñu naan bébé Aïcha mhm. moom itam dafa tàggu waa këram rek mais maa ngi dem ci bopp koñ bi damay jëndi nangam ak nangam xaw ma damay jëndi soow xaw ma lan mhm. gisatuñ ko fekk ko ci canal ñu ci benn canal le corps sans vie cadavre bi di flotter dans la semaine fii ci ñetti mbaar beneen nijaay ak jarbaatam di xëccoo lu ñàkk fayda xëccoo caabi jox ma caabi bi joxuma la kenn ki jël paaka ne ko duut jëm ko ko mu de mhm. kon nag non seulement léegi fréquence bi mhm. dafa jéggi dayo waaye motif yi bu la ci gën a yéeme nga ne kii euh, motif bi waral ñuy rey ay yu ñàkk fayda ay werante papa lan nga yaakaar ne moo andi loolu ah, ba avant daaw sax defe na am na mhm. scandale bu mel noonu ci benn arrêt kaaru euh, kii euh, Ndiaga benn apprenti doon xuloo ak benn coxeur xam nga coxeur yi ñooy wër di la indil ay client bu kaar bi feesee balaa muy dem apprenti am lu mu coppati jox la. apprenti bi coppati 150 francs jox ko. waaye ñu ne mhm. ko non non 200 la ñu waxante mu ne ko non non wax xaaral ba ma dem ba ñëw mu ne déedéet di nga ma jox poñante ku ne poñe sa morom poñe bu dëgër ci fukki dërëm ba ñu jaxasoo kenn ki jël paaka jam morom fukki dërëm. est-ce que alors kon nag mbir mi dafa laaj taxaw seetlu. Mhm. te yéen wax dëgg yàlla taskatu xabaar yéen a ngi ciy wax lu seen àq. macha allah xanaa ñu ñaan rek autorité yi may leen noppam ndax yéen a ngi ñëw di tàllal seen micro. Mm-hmm. képp koo xam ne ci penc mi la ne. Mm-hmm. te xëy na bu yëkkatee kàddoom ñu dégg ko. Mm-hmm. taxaw seetlu la laaj ndax lii mësul dal Sénégalais. Sénégalais gi de ci ci sëmbaxloo goo xam ne ci tiitaange boo xam ne. mari day tali alors léegi nag la danger. mooy bu population yi nekk ci tiitaange di alerter. parce que fàtte naa soxna Binta Gaye demoon naa ca dëj ba euh, masalu njaboot gi. 2022. Mhm. Mhm. moom tamit elle en sécurité. dafa mhm. toog dans sa cabine. Euh, di gérer son travail de transfert de d' muy la femme bi ñu rayoon Pikine. waaw ko Pikine te ñu jamati ko woon. Euh, Sicap Rue 10 sans compter. ka at ba ko jiitu Binta Camara. fi ci Tambacounda. moom itam kër papaam lañ ko fekk waaw kooku xam ne nee nañ da doon ngoronteeg moom euh, doon ko bëgg sàkku mu résister jusqu'au bout dëgg la ñàkk na ci bakkenam xeex na ba ñàkk ci bakkenam waaye te waaye waaye ji la mu bëggoon amu ko moo tax entre parenthèse ci la Jamra def jéego mm-hmm. ginnaaw bi ñuy criminaliser yamba beeg cocaïne beeg yooyu ci la defoon jooga nag ci troisième criminalisation bi ñu bëggoon moo di mm-hmm. le yàlla def nag ñu lëkkaloo

parlementaire def ay proposition de loi ça mhm. peut prendre du temps bàyyi mhm. leen ñun état ñu jël ko en charge mhm. effectivement moom moo def en conseil des ministres une proposition de projet de loi def ko en procédure d'urgence alhamdulilah ba mu eggee assemblée macha allah député yi voté nañ ko à l'unanimité muy la loi deux mille euh, mille vingt zéro cinq du 10 janvier 2020 désormais le viol est criminalisé waaw léegi moom euh, minimum dix ans la mais dafa am des circonstances aggravantes. Mm-hmm. bu fekkee dafa ànd ak violence ou meurtre comme le cas de Binta Camara. Mm-hmm. tentative de viol suivi meurtre kooku perpétuité la. Mmh. donc euh, yooyu ba mu amee. Mm-hmm. ci la ñu nee woon nag état bi war na di jël en compte. Mmh. les alertes yi population yi di def parce que euh, Fatou Kiné Gaye seen seen koñ la ñuy jàmbat wala boog seen gox. Mm-hmm. mooy amul commissariat. Mm-hmm. alors te yooyu population yi mënuñu ko amal seen bopp. déedéet waa euh, waa Kër Mbay ñoom tamit la même chose. Mm-hmm. bind nañu lettre préfet bind lettre commissariat bind lettre euh, ministre de l'intérieur ci insécurité bi. ñu tànqam lu leen. li ñu ragaloon moo mujj am Kër Mbay Fall. parce que foofu dafa amoon benn groupe de trafiquants de yamba. violent nag boole ci. Mhm. Euh, dem ba semer la terreur ca gox ba. ba population yi ragalee leen xel ñoom bañ demee nag ba gis loolu ñu yëg seen bopp dootuñu xaar guddi léegi diggu bëccëg la ñuy trafiqué. am na kuñ ci rayoon sax si ñoom. mu ngoog. Mhm. Ah, rax ci dolli suñu yaay yu baax yeeg bàjjen yu am jom yi nga xam ne dañ daan teel a xëy fab seen paan dem ci tefesu yaraax. lijjanti yi jënd yi ñu jaay ca marché ba sa marché ba pour am na ñu dimbali seen borom kër ñemeetuñu teel a mhm. xëy ragal ku leen agressé paa yi daan dem jàkk ja ñu fajaru ragal ku leen agressé donc c'était la terreur mhm. alors comme que ñoom bind nañu autorités yi ay yoon yoon yoon jurul njëriñ li ñu ragal moo am dëgg kenn sant ko kenn mhm. parce que dañuy wax ne dans un état de droit nul n'a le droit de se faire justice soi-même exactement fayintal fayal sa xale yi lu ñuy def dañu xëy rek waxtaan créer benn brigade d'autodéfense mhm. gànnaayu barre de fer kuuru bay Fall daal di koj chef de gang bi xam nañ heure bi muy bi muy bi muy xëy pour mhm. jël postam dafa ne jamet rek xale yi songo ko mhm. ndiiraan plus de cinquantaine de gosses barre de fer yeeg xeer yi kuuru bay Fall yëpp di dal muy daw di daw ñuy dóor dafa dem ba toll ci kër délégué de quartier bi mu ne carax dugg ci suufu ronu lal bi mooy lal yu jëkk mhm. tànk yi nag ngi débordé xale yi ñoddi ko ba ci mbedd mi doggali ko ni ñuy rey kañ rafetlu ñu ko waaye li ko waral mooy lu mhm. bu fekkoon déglu nañu leen woon neleen li ngeen di jàmbat lan la ñu ne leen insécurité bi lii ak lii ak lii police doon na ko jël en charge waaye mhm. comme que police jëlu ko en charge li ñu ragal moo am population yi jël ko en charge loolu mm-hmm. sant ñu ko kenn waaye bu état bi continuer di tàng xam lu mm-hmm. la amoon kër Mbay Fall boo moytul dina am feneen te weer bi passé am na Thiès mm-hmm. ki ñu taaloon xale bu jàmbaare ba jënd benn jakarta am di ci dawal di ci ut dépense di ci faj soxla boppam di dimbali ay waajuram mu am benn samba booy qui venait de sortir de prison la preuve mu ngi amoon toujours son bracelet électronique ci tànkam kon kooku il était sous contrôle judiciaire ah, foofu sax beneen parenthèse la euh, gaaw a libéré bi état bi gaaw a libéré ak grâce booy gracier bul gracier un criminel est ce nekkul la nga xam ne Sénégal bëriwul ay euh, tabaxuñu defuñu ay infrastructure euh, prison yeneen prison waaw mais dégg naa ministre de la justice wax ne que jam ca Diamniadio am na ay chance yu fa yu fa am pour que ñu mën a désencombrer Rebeuss ak Cap Manuel alors mhm. mu jam ko borom moto bi daanu dee alors fayuntoo bi ñuy ragal moo mujj am Thiès aussi. comme est-ce que c'est pas la bonne solution so pour affaire yi continuer nii. ray ray di ray est-ce que ce sera pas la bonne euh, solution ah. population bi yëgal seen bopp loolu gënul. waaye hmm. ci lañ jëm. ñooñu ñoo ko mujjee dóor dóor dóor ba damm cër yëpp. Hmm. fop essence sotti ko daal ko. voilà kon nag encore une fois. Hmm. ñu ngi ñaan état bi. ginnaaw nañ ko ñaanee. ca état Macky Sall ba ñu reyee Fatoumata Makhtar Ndiaye en 2016. ñu mhm. ñaanaat état bi mhm. na prêter une oreille attentive mhm. aux populations euh, yi nekk en détresse macha allah bon keroog ba ma jeexale sama émission ak sa naataango euh, Babacar Fall bu kii euh, RFM waaw ci émission RFM matin parce que nee na jàmbat jàmbat bi baax na qu'est-ce que dama ko newoon ce qu'on propose mooy état bi na mettre à la disposition des populations mm-hmm. un numéro vert numéro vert boo xam ne doo fay mm-hmm. pour que boo gisee lu la jaaxal wala nga nekk ci quartier bu bu mel ni Chicago nga mën a alerter autorités yi moo tax nag soo ma ko mayee damay joxe deux numéros verts mm-hmm. pour nit ñi mën di ko utiliser doo fay doo crédit bi du marqué ci yow mais Sénégal amuñu notion di woote ay numéro vert de amuñu euh, amuñu bi au fait ñu jéem ko am rek mais la seen kaaraange parce que mhm. maa ngi dégg euh, le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine mu joxe un chiffre alarmant mhm. nee na diggante waaw ci euh, deux juillet août rek. Mhm. seize meurtres. seize meurtres surtout ñaaw sa morom nga ne bii. voilà euh, numéro de verre nag bari na ñett rek laa leen ciy jox. benn bi bu dee police. quatre vingt ngay def. zéro zéro onze quinze. quatre vingt zéro zéro onze quinze doo fay. ñaareel ba gendarmerie nationale. 80 00 25. 80 00 25. beneen bi nag bu dee da nga gis loolu bâtiment buy bëgg a daanu wala foo xam ne mu ngi lakk. Mhm. et boobu protection civile ñoo koy gérer. 80 00 12 01. 80 00 12 01. alors numéro yooyu. Mhm. Euh, na police def communication xamal nit ñi ne ñun police ak yéen population yi dañu war a collaborer. Mhm. pour que la peur puisse changer de camp. parce que defkatu ñaaw yi dañuy collaborer ak ñoom. macha allah ñaare am na ci ñoo xam ne dañuy def des agressions en bande organisée. Uh-huh. waaw kon population yi du gàcce nga gis ay agresseurs ci sa koñ sol lunette guddi yi noir fumé yi ñuul kooku <laughs> xam nga koo gis mu am boobu comportement. te dëkkul ca gox ba. Uh-huh. bari fay tànk. am fu muy toog am ñu muy waxal. Mm-hmm. leerul woowal police ñu ñëw intervenir ne ko coppet yóbbu interroger ko. macha allah voilà il faut ñu am cette culture là. Mhm, bu ñu ko mhm. amul rek. Euh, du baax. merci beaucoup papa am na solo mais en plus tarder balaa émission bi di jeex depuis que cas meurtre yeeg insécurité bi nga xam ne installé wu na rey bi bari na ba nga xam ne nit ñi tey population bi di revendiquer la peine de mort te Sénégal comme ni ñu koy waxee rek peine de mort dañ ko fi ragal. yéen en tant que yéen nga xam ne yéenay Jamra en tant que président euh, vice président Jamra tey lan moo si war a nekk seen taxawaay ba nga xam ne loi boobu dina dem assemblée nationale ñu daal di koy voté ndax sénégalais seen xel dal tuuti. waaye itam sénégalais il faut qu'ils sa ce qu'ils veulent doo mën ne meurtre yi bari na <laughs> criminalité bi. bandi lëmbe lañu ba pare bu ñu ne peine ñu ne ah sénégalais yi dañuy ragal peine de <laughs> yow defoo loo koy ragale kii def. njombe moo ko war a ndax xam nga maa ngi ko doon weranteeg sama benn xarit euh, bu nekk ci benn organisation des droits de l'homme ne ko yéen ñi contre loolu yéen a ëpp yërmande yàlla ndox bu ñu fàtti ne suñu borom ginnaaw bi mu bindee te ci texte sacré yi boo ci dem gis si euh, même anam biñ ko waxee muy tawreet bi yont yàlla Moussa mu di injiil bi yont yàlla Insa wala alxuraanul karim bi suñu borom Eh, baaxee eh, askan wi te jaarale ko ci sang bu tedd bi Seydina Mohamed suñu borom ginnaaw bi mu bindee asamaan mhm. bind suuf mhm. bind géej gi jaww ji jéeri ji doj yi gàncax gi mhm. mala yi malaaka yi et cetera et cetera ba mu demee ba la muy créé ci univers bi yëpp sotti ci la ñu doog a créé ñun doomi aadama moo tax ci waxin wolof ñun ñii ñun nit ñi ñooy caatu yàlla te xam nga déjà ku nekk ci ñun. Mm-hmm. la la yàlla dënk ci njaboot moo xam sa jarbaat la wala say doom nombre bu nu mu mënti toll boo ko seetloo ñaare ki ngay gën a am ci moom ñeewantal mooy caat wa moom ngay gën a yërëm. Mm-hmm. kon nag noonu la suñu borom fonkee doomu aadama. macha allah moo waral mu taggal ko ñaari mu tëggal ko ñaari bakk ci alxuraan mm-hmm. nee wala xadd karam naa bani aadama mhm. nee na doomu aadama dama koy yëkkati au niveau de la seigneurie li ma bind yëpp moom laa fab teg ko ci kaw te dëggal na ko ci beneen baat nee na xalifatullaahi fil ard macha allah doomu aadama mooy sama représentant mooy sama ambassadeur sur mhm, terre mhm. noonu yàlla fonkee doomu aadama nag noonu la ñàkkee yërmande noonu la sévère contre képp kuy jàpp bakkenu doomu aadama di ko fooy macha allah di ko rey ci kaw topp sa bakkan mhm. loolu waral nag mu tëgg ci suratul baqara la loi du talion parce que naka jekk avant l'islam di ñëw surtout euh, en Arabie nga xam ne dañ newoon ci lëndëm kurus nekk ci jahiliya ku mën sa ëpp sa morom doole dóor suñu borom daal di wàcce la loi du talion mu ngi suratul baqara ndax mhm. temps yooyu danga daan gis ñaari tribu kenn jóge fii dem am ku mu joteel ci beneen tribu jàmmaarloo am bakken rot mais sa ëllëg sa tribu ba nga xam ne ki ñuy rey fa la bokk. Mhm. ñoom dañuy jóg organiser benn expédition punitive. Mhm. song tribu boobu léegi ñu yam rem rek ci rey ci rey seen mbokk. Mhm. waaye kooku dañ koy rey rey jabaram rey doomam rey papaam rey rayam waa rey koñ ba trente quarante personnes pour fayu te fekk kenn rek def jëye ji. suñu borom nekkoon nag boo leen bëggee une société équilibrée. na ngeen pratiquer la loi du talion pour que sanction bi. ngeen yemale ko cote ci Mm-hmm. ci sens boobu la suñu borom euh, préconiser mm-hmm. la peine de mort pour éviter fayuntoo gi mm-hmm. la preuve si dëju Aziz Dabala ñu ngi gis say naataangoo am ñu ñu filmé ñuy xataraayu xaw ma ci famille bi lañu bokk xaw ay fanse lañu xaw ma dañ doon dox rek yem ci waaye maa dégg ci seen baat naan lii rey yi li koy réglé fayuntoo rek attention alors genre opinion yooyu buy dem ba commencé di généraliser wu mën na dem ba indi sax guerre civile. comme dañu ah, population bi dañoo sonn. Haïti ak yooyu léegi. Mhm. bande armée yi ñoo jàkkaarloog population yi. Mhm. agresseurs yi d'un côté population yi armée mhm. de l'autre. voilà kon nag comme que luy raam ci ñag bi la jëm. na état bi teel a jël matuwaayam. matuwaayam mooy nañu delloo dellu ci li la wax. te nañu bàyyi naan fii du état islamique États-Unis est-ce état islamique la. Euh, Corée du Nord est-ce que état islamique Chine. et cetera. Mm-hmm. alors dellu ci yàlla mooy ñu def li suñu borom wax. ne ne boo leen bëggee jàmm na ngeen def cette justice sociale la. Mm-hmm. muy ku nekk la nga def. Mm-hmm. ñu teg la ci yoon ci kaw la yoon tëral. parce que effectivement contrairement ak li droit de l'homme yi di wax. naan pourtant c'est contradictoire ma ne ko lu tax mu ne alxuraan nee celui qui tue un être humain c'est comme s'il a tué l'humanité ma ne déet mm-hmm. attention yàlla boo waxam ci wàññi bul ci yow loolu nga wax am na mm-hmm. mu ngi ci suratul Mahida mm-hmm. verset 33 34 suñu euh, suñu borom a waaye li ngeen ci rocci mooy suñu borom dafa ne celui qui coupable de meurtre c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière kon loolu ngeen dindi delloo leen ko ci. lu tax ngeen tronqué ko <laughs> waaye yéen ne ngeen rek nee nañ celui qui tue un être humain c' est comme s'il a tué toute l'humanité dafa ne celui a tué un mhm. euh, allah ñu ne waaye euh, ni koy appliqué aussi dafa automatique ma ne c' est pas automatique. laajte mhm. leen boo demee dans le pays yi atte woo charia. Mhm. ñoom li ñu tënku mooy li suñu borom wax. ma na bu leen rek. ak loo leen am preuve ne kii moo rey ngeen jóg rek ne da ngeen koy rey euh, demeewul noonu mu ne na ngeen taxawal benn cour d'assises mhm. islamique mhm. bu tënku ci sart yi suñu borom tëral mu di lan suñu borom ne na ngeen définir d'abord ban genre rey la mhm. moo tax l'islam ñetti genre rey la prévoir benn bi mooy euh, xatlul hamdi ñu di ko wax dans le droit pénal positif euh, moderne homicide volontaire avec préméditation. Mm-hmm. wolof naan rey bu ànd ak tayeef ak waajal ko. Mm-hmm. ñaareelu xeetu rey bi l'islam wax ci charia moo di euh, xadlul subhul. Mm-hmm. mooy coup et blessure volontaire. ayant entraîné la mort sans intention de la donner. par exemple euh, ñaar ñuy xeex kenn ki ëpp doole moromam. Euh, dóor ko dóor yu xaw a jéggi dayoo. Mm-hmm. mu dem ba àttanu ko. Mm-hmm. après ñu dal di gaañante. Mm-hmm. kenn ki ñàkk ci bakkanam. kon du woon jubluwaayam mooy coup et blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la ñetteelu xeetu rey bi l'islam prévoit dans le code pénal de la charia mooy xadlul xataay. mooy homicide involontaire par exemple ngay dawal sa oto à cent à l'heure dans un quartier populaire comme la Médina ou Colobane mhm. benn xale di football génn nga fiir ko kon kooku homicide involontaire alors suñu boroom ne nag mhm. ñaari catégorie yu mujj yi mu di xadlul subxul coups et blessures volontaires ayant la mort sans intention de la donner ak tamit xadlul xataay muy euh, rey bu niroog teyef waaye du teyef mm-hmm. nee na ñaari catégorie yooyu mm-hmm. na ngeen leen génn ci peine de mort mm-hmm. kon ñooñu dañuy am une peine privative de liberté d'accord assortie de ce qu'on appelle la DIA la DIA mooy le prix du sang mm -hmm. la compensation financière jamono yonent bi ñu ngi ko évalué woon à quarante chameaux mm -hmm. donc ça devait faire à peu près dans les vingt millions mm alors moom la daan jël jox ko euh, famille Euh, ki loru. maanaam mooy amande bi. voilà alors léegi nag euh, la nga xam ne moo doon euh, amende kii kii bi financier bi. Mhm. njabootu ki loru lañ koy jox. assorti de kafaara. Mhm. kafaara mooy pendant ton emprisonnement da ngay woor ñaari weer yu toftaloo te boo ci dogee benn fan da ngay recommencer. kooku mooy ñaari catégorie mais mhm. catégorie bu njëkk ba nag xatlul xamdi. muy homicide volontaire avec préméditation rey bu ànd ak teef ak waajal ko. Mhm. suñu borom ne boobu amul maslaa na ngeen appliquer la loi du talion. noonu la demee. mais c'est mhm. pas automatique. te ka nga xam ne tuuma yi tegu ci moom. def mhm. nañ ba am firnde yu wér ne moo ko def daf ko tey te def ko waajal. suñu borom ne da ngeen di appliquer la loi du talion waaye nag dafa jëlaat beneen sécurité. muy suñu borom nee na na am un deuxième procès pour xool ndax amul circonstance atténuante. ndax ba def ànd xelam. est-ce que mandiwul woon est-ce que amul woon crise voilà deuxième troisième sécurité est-ce que parent wu ki loru jéggale nañu xam nga ndeysaan moo dal suñu mbokk mi euh, ki nekk Arabie Saoudite mm-hmm. waaw ñu ngi xaar xale yi majeur <coughs> bu ñu majeur ñoom ñooy wax ndax dañuy jéggal wala <coughs> di mooy la problème mu mbayang bi voilà d'accord dina ci dox temps yi macha allah macha allah bu ko defee mm-hmm. bu amee circonstance atténuante rek. Mm-hmm. wala mu am benn sentiment de pardon. Mm-hmm. Euh, euh, mbokk yi ki loru fésal ko. Mm-hmm. automatiquement dafay annuler le verdict de la peine kon gis nga l'islam dafa jël ay garde-fou. pour que erreur judiciaire bañ am. ma ne ko léegi nag pour tontu la ci li ngay naan est-ce que du mel ni Sénégal dafa am état dafa nekk état islamique ma ne ko États-Unis nga xam ne xel demul ñu di leen taxé d'être un état islamique mm-hmm. sur les cinquante états am na seize yu abolir la peine de mort bu ko defee am na ci trente quatre yoo xam ne ñu ngi koy appliqué ba tey mm-hmm. alors seize yooyu aboliroon la peine de mort bokkoon na ci Nebraska mmh. Oklahoma Californie waaye ñooñu sous la pression des organisations droits de l'homme ma ne ko comme sa bos bi mm-hmm. ñoo sonnal gouverneurs yi waaw c'est mais c'est nangam nangam ba gouverneurs yi abolir la peine de mort waaye rëccu nañ ko. Mhm. dañ ci teg diir bu gàtt ay 4 mois 5 mois 6 mois rek criminalité bi jolli. jolliwaat ñu commencé léegi di noggatu les personnes euh, vulnérables. Mm -hmm. comme les personnes âgées. Mhm. xam nga foofu du ñu def comme ñun di dem IPRES di farang. seen mhm. pension retraite. dañu am seen carte bancaire rek bu fayeeku pension retraite jotee. ñu dem ci distributeur de billets automatique bi la gën a jege nga fay ko malfaiteurs yi commencé di pointé wu heure bi retraité yi di fay ko. Mhm. ci distributeur de billets nga ñëw ñu jam la rey la jël sa alal. Mhm. crime bi jolli ba ci recrudescence des actes de viol et de pédophilie suivis de meurtre. alors population yi na ñoo mujjee wàcc ci mbedd mi. Mhm. def ay marche ne yana maar yéen a fi jëlee woon peine de mort. waxuñu woon nekk dafa saafaraal criminalité bi à 100 pour cent waaye am na au moins euh, def ko ti ñaawte fii loo xam ne daan nañ ci am kerse ndax xam nañ leen ciy fekk alors gouverneur ne waa d'accord dinañ delloowaat kaddu gi au peuple. Mhm. kon ce qu'on va faire. Mhm. ñetti gouverneurs yi ñooy wax noonu mooy Oklahoma Nebraska ak euh, Californie. Mhm. ce qu'on va faire comme que dañu nekk ci année électorale. parce que boobaa ñu ngi woon ci présidentielle euh, Donald Trump Hillary Clinton. du 8 euh, novembre 2016. Mhm. léegi présidentielle boobu dañ koy couplé ak référendum. Mhm. boo xam ne benn question lañ leen di laaj. est-ce que d'accord ngeen oui ou non ñu delloo si peine de mhm. kon les électeurs de ces trois états noonu la ñu voté. waaye ba jant sowe Nebraska moo génn en tête avec 61 pour cent d'avis favorables au rétablissement de la peine de ñu daal di ko delloosi. fii may wax yow ni ñetti états yu delloosi nañ ko waaye bañ ko delloosee. waxuñu ne faagaagal na ko complètement waaye lu muy bon bon bon criminalité bi wàcc na lu bari wàññeeku na parce que saay-saay yi xam nañu ne parce que dañu yor seen cerveau di réfléchir mhm. euh, boo defee lii lii mën na la ci fekk alors mu jegi dañuy naan ah xaama téema agressé rek sàcc li may sàcc mhm. wala ma cambriolé sàcc li may sàcc te bàyyi nit ñi ak seen bakkan alors mu am nag une tranche exceptionnelle de psychopathe macha allah de tuxkati yamba mhm. de drogué ñooñu ñoo desee di agressé ndax du ay jëmmu nit dafa ne waaye nit jëmmu nit lañu am waaye nit nekkatu fa alors ma ne kon nag ñun li ñuy demandé depuis 2016 mhm. bi ñuy reyee Fatoumata Makhtar Ndiaye rey Binta Camara à Tamba rey euh, Fatou Kiné Gaye à Pikine euh, rue 10 prolongée mhm. li ñuy ñaan te ñoom ñëpp yàlla na yàlla besalaat yërmandeem ci seen kaw a ngeen bañ leen a fàtte di leen ñaanal ndax jigéen lañu te jigéen suñu borom dafa ne dañ ko war di protéger war di aar mais au lieu de ça yow ku góor ki nga am lâcheté protéger woo ko aaroo ko waaye ñëw di di pour sàcc alal. Mhm. nga yóbbaale bakkanam alors ñun nag la mhm. moom la ñuy demandé waat. gouvernement bu bees mi ngeen koy demandé mhm. moo fi créé woon loi bi dindi peine de mort. ndax peine de mort bi Sénégal di juddu la judduwaale en même temps que l' te yàlla def na sutura Sénégal xërul xaabaabalul ci application peine de mort comme Chine Corée du Nord Arabie Saoudite mhm. fii ñaar yoon rek lañ ko fi appliqué benn bi c'était le 3 mars 1967 euh, au lendemain de l'assassinat du député socialiste du député maire socialiste Demba Diop fii ci Mbour mhm. d'ailleurs stade bii ngay tudd dégg Demba Diop moom lañ ko tuddee mhm. ñu appliqué ko une deuxième fois le 22 mars 1967 au lendemain de la tentative d' assassinat du président Léopold Sédar Senghor ñaar yooyu kott la alors bi Abdoulaye Wade jëlee pouvoir nag bon réunion boobu fekkee naa ko ndax mhm. Abdoulaye Wade wax dëgg yàlla luñ ko reproché reproché mhm. il avait la courtoisie et l'humilité bu bëggee jël des décision n'est-ce pas de de de de de portée nationale. wala internationale day woo ses alliés. parce que mhm. ñun nous étions ses alliés. si ñu ko fal la ñu bokk. on était en alliance électorale. avec la CDC garab kii di professeur yu bëree ci am. daal di leen jox parole ñu def tour de table. waaye Jamra était contre. que ñu dindi peine ndem ah, si yàlla si Mbaye Jacques Diop était contre. Euh, Iba Der Thiam était contre. d'accord euh, Cheikh Ablaye Dieye euh, borom Allahu Wahidun. Mhm, mhm. bàyyu Cheikh Bamba Dieye il uh-huh. était contre. mais comme que la majorité. Mhm. dañu àndoon ci li Ablaye Wade wax. Ablaye nag daal di jël texte bi. jébbal ko sa majorité parlementaire à l'Assemblée ñu daal di voté ko la loi 2004 38 du 28 décembre 2004 moom moo abolir la peine de mort moo tax peine de mort dafa dañ ko ajandi hmm. moo tax nag ma daal di tontu droit de l'homme bi hmm. ma ne ko li ngay wax naan il faut recréer y a rien à recréer amu fi dara lu des si mën a tàmbaliwaat loolu ko baare moom la ñuy assemblée nationale benn loi d'abrogation. Mhm. bu ko abrogé peine de bi commencé waat doxaat léegi ñaa ñaa ñaa def ñaa def ko tu yi. Mhm. bu ñu xamee ne ah Sénégal dellu na buum sa mboy mboy léegi day rey dem damay werante sama fukki dërëm fayoo ma ko ma jam la nangam ak nangam fekk nit ki bopp koñ ba muy dox soxlaam nga rey ko ah léegi buñ ma jàppee ba am firnde yu wér ne maa ko def dinañ ma rey kooku dana am tuuti lu ko dese ci yóor. Mhm. mu mën a réfléchir. Euh, ba xëy na. Euh, euh, dayoo bi rey yi amoon. Mhm. waxuñu ne dana ko saafaral à 100 pour cent waaye dana ci wàññi 80 pour cent wala lu ko. waaye papa est-ce que waa duñu jiitu rek population bi euh, accompagner leen ci peine de mort bi. Ah, waaw mais xam nga balaa loola. Ah. dañuy def sensibilisation moo tax sax maa ngi jox scoop bi. macha allah ñu ngi préparer benn conférence de presse bu mag a mag. Mhm. boo xam ne day waajal marche bii ngay wax. macha allah ñu ngi koy def ak waa ànd bu sama xarit di sama doomu ndey Mballo Dia Thiam. macha allah Mballo Dia Thiam euh, euh, kuréel boobu mu jiite. moo mhm. bu mag la bu regrouper tous les syndicats de la mhm. santé. Mhm. et de l' action sociale. macha allah ñu ngi préparer benn conférence de presse. pour euh, def taxaw seetlu. sur les trent recommandations. des assises de la justice. nekk lu am solo yi ñuy amaloon du 28 mai. incha allah alors ndax ci biir recommandation yi def ci am ñaar yoo xam ne musiba la mm-hmm. benn bi mooy am na benn lobby bu def activisme mm-hmm. lors des travaux de commission mm-hmm. ba ñu ngi def yi pexe pour la légalisation du yamba beneen bi xam naa activiste euh, clochard ba bu nekk ci diaspora bi tey saaga Jamra ak di saaga kilifa diine yi depuis bi ñu criminalisé yambaam mu ngi ciy dundee yaakaar waaye booye boo nga noppal fii kenn du fi daganal yamba <laughs> kenn du fi légaliser sa cocaïne bu bon boobule nga xam ne moom ngay mukki muy wëlbati sa yóor dootoo ànd ak benn kersa di saaga kilifa dii yi di saaga waa Jamra ndax lu ñuy criminaliser sa yàmba. Hmm. alors mu am euh, beneen euh, recommandation. Hmm. boo xam ne mouvement féministe yi ñoo def activisme. Hmm. ba jàllale ko moo di affaire avortement. léegi nag ñun yokk nañu ci euh, ñun ak waa ànd gësam bu Mballo Dia Thiam. macha allah pour une solution radicale contre la criminalité te beneen si sufi lul la peine de mort kon nag su ñuy def conférence de presse bi ci ñetti point yooyu la mhm. suñu paree na dem des tournées mhm. dinañu seeti association religieuse yi waxtaan ak ñoom ba Sénégal yëpp a jóg mhm. def manifestation bu mag pour le rétablissement de la peine de mort de sorte que la peur va changer de camp waaye bu fekkee xat na yi tamit ñu ngi proposer une solution intermédiaire ni président la République yi fi jógee. Mhm. Abdoulaye Wade ak Macky Sall. Mhm. léeg-léeg ñu jékki-jékki santir le besoin def benn conseil présidentiel spécial. Mhm. sur l' agriculture conseil spécial conseil présidentiel sur les investissements. alors ñoom euh, euh, Bassirou Diomaye Faye aussi. mën na woote benn conseil présidentiel spécialement axé sur la sécurité. incha allah Euh, responsable takk der yi. Mhm. invité euh, représentant bu bàjjenu gox yi. Mhm. représentant délégué de quartier yi. Mhm. ak yéen euh, taskatu xabaar yi ñu waxtaanee ko ba xam lu mu laaj. voilà mais dans tous les cas. moo gën tànqamlu bi ñuy tànqamlu yenn population yi nga xam ne ñu ngay jooytu. ne amuñu commissariat. macha allah lu mel ni waa ginnaaw raay. ba ñoom ñu ngi jooy commissariat. macha allah conseil présidentiel boobu. dana mën may sénégalais yi. Mm-hmm. seen i représentant ya leen fa teewal incha allah mën a eggee autorité yi seen ñaxtu ci wàllu mm-hmm. sécurité ndax dëkk bu amul sécurité mm-hmm. doo mën liggéey fi mu ne Sénégal dañuy changé seen habitude am na quartier yoo xam ne neuf heures ñëpp daw làqatu ji dëgg la dëgg la dëgg du yoon macha allah que wéyu di ñu di ñu imposer la pluie et le beau temps et enfin état bi bu mu naagu mukk defee ne mën na faire face à la criminalité te sooraalewul xeexum yàmba bi lu am solo xeexum drogue drogue bi. Mm-hmm. ndax. ak sàngara bu nit ki boo àndul ak sa sago. Mm-hmm. doo xam loo moom ak loo moomul. boo àndul ak sa sago doo mën a jaamu yàlla. macha allah boo àndul ak sa sago doo eh, amal njëriñ sa réew. macha allah particulièrement nag xeex boobu na état bi eh, yokk jéego yi ci wàllu vole bi. Mm-hmm. ñu di ko wax ecstasy. muy xeetu drogue boobu nga xam ne dafa mel ni tàngal. léeg-léeg nga xool ko sax mu mel ni comprimé Doliprane yii dafa vert yii jaune xale yi dañ ko def une banalité mhm. maa ngi remercier le directeur sortant de la police nationale Seydou Bokar Yàgg mhm. recevoir na ma ci mhm. avant les élections ñu am ci waxtaan bu yaatu waaw nee naa ko volet bi nag euh, jamono bi muy doog dugg fii Sénégal en deux mille deux vingt deux benn comprimé vingt cinq mille la woon léegi mille vingt prix bi baissé na ak mhm. quinze mille deux mille vingt quatre bii ñu toog di wax ak wàcc wàcciwaat na ba cinq mille xale yaa ngi koy jëfandikoo may yëgal waay jur yi nag mhm. ne loolu benn fabrication chimique la mhm. boo xam ne dafay toppandoo li yàlla def ci yaramu doomu aadama ñi di ko wax adrénaline adrénaline c'est l'hormone de l'activité maanaam ñun ñëpp la ko yàlla may euh, mu ngi nekk fii au niveau des glandes surrénales ci rein boo nekkee ci activité di dox di lire journal euh, jigéen ñi di dem marché ak yooyu hormone activité boobu mooy nourrir les cellules. Mm-hmm. mooy nekk seen carburant. Mm-hmm. léegi nag chimiste yi daal di defar loo xam ne dafa niroog moom. Mm-hmm. effectivement muy amphétamine qui a la la même structure que l'adrénaline. waaye le problème mooy euh, cellules nerveuses yi mu di neurones yi. yi composé cerveau bi su sous l'effet d'amphétamine bu ñuy jàllalee une information d'une cellule nerveuse à une autre à travers les synapses synapse benn pont la bu dox diggante ñaari cellule inchallah cellule euh, émettrice bi dafay reprendre le neurotransmetteur mm-hmm. mais su l'effet dam wow koŋ sew na sa njort ñaaw ku ci am doom buy toog ba deux heures trois heures du matin nit ñaa ngi tëdd di nelaw di récupérer pour mën a nekk en forme lendemain moom mu nekk ci chambre am xërëñ xërëñ keex nekk ci portable am ak whatsapp beeg. di mhm. di audio. Mhm. na sa xel ñaaw ci moom. Mhm. ñetteel ba et c'est ça le danger daf leen di jox impression nest pas du d'une force. Euh, qui qui qui dépasse leur capacité réelle. am na drame bu amoon France bu yàggul xale bu seeti woon bàjjanam nekk sous l'effet de la drogue volée. mu naan doom ji euh, bàjjan bi Euh, yëg nga ne te ñu ngi sixième étage de mu ne ko yëg nga ne mën naa tëb ba noppi dellu siwaat wàjjën ji le temps que mu naan dee looy wax ni rek xale bi naaw est-ce que évidemment dellu siwul kon volet foo natt ay ñaawteefam weesu na ko lu am maa ngi gërëm nag commissaire Florence Mendy ndax mhm. ba ma ko seetee signalé nañ ko la géographie du réseau des trafiquants mu di l'axe Bissau Banjul Dakar mhm. waaye teguñ ci une semaine ci xarañteefam ak mobilisation bi mu mobiliser ses hommes mm-hmm. alors jàpp nañu deux grands trafiquants mm-hmm. de volets trafiquants yooyu nag loolu tam na ko parents yi xam ñu ngay tambaambaalu buntu boîte de nuit ñu ngay taxawaalu ci buntu école yi mm-hmm. ñoom ñoo koy jaay xale yi di ko naan di nerveux di ko naan di naqari deret xale yi commencé di agressif ba pare nag c'est le plus dangereux nekk des pervers sexuels parce que volet bi dafay exciter la libido l'instinct section kon c'est pas étonnant ñuy jàmbat naan waaye viol yi dafa bari eh bien vole bi dafa bari foog viol yi bari voilà loolu daal la ñuy wax état bi ne soo bëggee xeex rey te bëgg a sàgganee xeexum drogue bi mm-hmm. yamba ji cannabis bi jógee Mali lopito bi jógee Nigéria bran bi jógee Ghana cocaïne bi jógee mm-hmm. Amérique du Sud ak vole bi mm-hmm. nga bëgg a sàgganee loolu coup d'épée dans l'eau lay doon. lu état bi def du jur benn njëriñ. kon ñaar yi ñoo war a ànd en tout cas ñun. Mm-hmm. organisation société civile. Mm-hmm. Euh, comme que ñun la yàlla dénk prévention état yàlla dénk leen répression. kenn mënul dem bàyyi moroomam mhm. voilà kon nos actions sont complémentaires. macha allah papa merci si éclaircissement ya nga xam ne andi nga ko ci vole bi parce que actualité la te dafa bëri euh, dafa bëri ci dëkk bi lan ngay tàggatoo c' était un plaisir nga dalal. waaw fii euh, euh, bataaxal ak médina waaw jërëjëf ñetti kuréel yi. ñu baaxee tey seen seen ngan. macha allah mu di bataaxal TV Medina TV Evidence TV. Mhm. ndax bu dul woon yéen euh, suñu kàddu du dem fenn. macha allah voilà te Sénégal bi ñun ñoo ko bokk. Mhm. ce pays nous appartient à tous. comme nous mhm. avons l'habitude de le dire et nous devons le construire ensemble. Mhm. di ñaan suñu borom di ñaan way jur ñuy bàyyi xel xale yi bu baax ndax yar doom lu metti la yar sa doom ba defee na yaa ci ne dëgg mu génn ci mbedd mi cinq minutes rek la nga tabax ci xale bi ci jom pendant dix ans quinze ans benn samba booy ñëw màbbal la. c'est vrai moo tax sànq maa ngi wax boîte de nuit di wax. Mhm. Euh, danse yi. Mhm. na état bi sóoraale. buntu école yi ak lycée yi parce que jaaykatu volet yi dinañ fay dem di fa taxawaalu. est-ce euh, maa ngi ci doon citeel Ablaye Daouda Diallo benn exemple. ci mhm. ni euh, ni ñuy meebee xale yi. macha allah xam nga yéen jigéen ñi par exemple bu amee benn création benn. benn nouveau savon mhm. en poudre mhm. euh, boo xam ne nit ñi miinaguñu marque bi mhm. léegi euh, usine bi ko fi indi pour def promotion bi dafay emba embaucher des agents commerciaux jox leen de petits sachets de vingt cinq grammes bu ñu demee ci marché yi alors dañuy jéegi-jéegi rek euh, jigéen ñi ñëw di dugg si ñu gis ku mel ni a Diallo rek mu ñëw di ndugal jëkkëram def pour waajal ko vraiment añu dimanche ñu ne ko waaw si ah xoolal rek saabu pëndëx bi kii day moom sa sa boo ko jariñoo dootoo ko mu ne ah xam nga ñun suñu borom kër yi seen dépense dafa juste loo ci dindi rek mu manqué ñu ne non non ki la doo fay may mun a jël mm-hmm. dem këram ñu añ ba pare ba waa kër ga yëpp suur mu jël échantillon bi raxas si ay ndabam muy nes nesi mu jël échantillon fóot ay torchon mu mu ne joy di nes nesi mais bu ëllëgee yow kenn du la jiitu ca place ba nga gisee woon waa ji parce que fayuloo <laughs> waaye nag boo ñëwee gis maire yi jaay jën ne waaw ana sama càmmañ bi nekkoon fii ba te may ma sachet yi ñu ne mu nga ne lay taxaw dëgg la nga laa di waaxu ñëw ba ci moom waaw waaw sama càmmañ waaw ah affaire bi ba nga ma ko joxee day tubaarkàlla ah waaw loolu day moom waaw moom ni muy demee mu ne ah loolu échantillon la léegi dañ koy jaay loolu lay ñëw nag alors bu ko defee yow nga obligé coppati sa dépense jënd ko te sóoraale ko volet bi wax naa ministre bi ne ko c'est la même chose mm-hmm. day ñëw buntu école yi particulièrement heure permanence mm-hmm. fekk xale yi génn di féexlu ñaare nag trafiquant yi de volet yi dañuy nenn xale yi tux cigarette mm-hmm. parce que foofu xëy na fa la approche bi gën a yombee ñoo ne la waa booy na nga def nga ne eh tonton temps yi dañuy sonn révision yi examen yi ñuy waajal suñu bopp yi doo fees del mu ne non xanaa yëgool yi xaw mu ah, ne ah mu ne lii kii boo ko jëlee day ubbi sa bopp boo ko jëlee day tax nga jëli science donc tenir ko un discours de propagande satanique en tout xale bi ne ko ah lii day wax dëgg yàlla comme que benn bi wàññi ngeen ko ba mille francs la waaye xam nga suñu papa yi rek paas lañ lay jox ak njëgu goûter mu ne non non lii échantillon la xale bi ne ah bon mu ne jëlal xale bi jël doom bi daq laqatu ji si ginnaaw duus yi <laughs> jëfandikoo ko c'est daal di dugg classe jékki di dégg ay son yu kenn dul dégg mm-hmm. jékki-jékki di gis ay couleurs yu kenn dul gis. Mhm. parce que dafay créer hallucination visuelle. exactement nga defe ne ci un super homme. super mhm. intelligent. Mhm. alors kon foofu bunte la boo xam ne ñoom ñu ngi fay jaar. macha allah ndax xale bi bu ëllëgee bu ñëwaatee. ci weti maire yi jaay gerte. am na solo waaw maire ana ki taxoon fii ba ñu ne ah kan mu ne waaw mooy ki kab bi ñu ne ñëw na de mu nga nële. nga ñëw foofu waa grand affaire bi nag mu ne ah kooku échantillon dañ koy jaay mais xale bi. nga xam ne goru yetu fu mu koy jël mu def lu mu warul def mm-hmm. moo tax seen kër bon bi day jékki teg portable ñu xam mu ne mes du ñu xam ku ko jël mm-hmm. parce que effet de manque bi bu la dikkalee mm-hmm. di nga jël loo moom ak loo moomul voilà kon nag euh, njaboot bi loolu lañ leen di dénk di gërëm média yi nga xam ne ñu ngi jàllale message bi ndax ñu àndandoo ñun ñëpp xeex volet bi macha allah xeex yamba bi xeex loppito bi xeex cannabis bi macha allah yal yàlla fay seen taxawaay amiin amiin amiin yal na yàlla dàqal Sénégal seytaane amiin amiin suñu kilifa diine yi yal suñu borom ñoddi seen fan amiin amiin amiin yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu fu yàq yeggul amiin amiin wasalaamu aleykum wa macha allah amin si ñaani Papa Matar Gueye lañ fi da lañ fi dalaloon ci Medina TV ak Bataaxal TV muy andi éclaircissement yu am solo lépp rek si euh, li les bienfaits yi nga xam ne tey lépp la nga xam ne tey société bi su ko dégloo ci moom rek dina jariñ surtout côté volet bi nga xam ne mu ngi yàq sunu doom yi kon niñ koy waxee rek ñun ñëpp ay yaay lañ parce que ay jigéen lañ ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dolli sutura muccal sunu njaboot gi saa su ne yal na yàlla muccal sunu njaboot parce que tey da nga yàq sa doom fa nga ko war a yaree mu génn si biti tey ah, ñi nga xam ne ñoom la fekk si biti daal di koy yàqu kon ku ci julli rek nanga ñaanal sa njaboot yàlla muccal leen mu baax a baax a baax Seydi ah, laa ci àndaloon Medina TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jox rendez-vous à incha allah